Sorano seeni biir kër loolu mooy équipe bu théâtre national Daniel bi nekk Ndakaaru yëpp andi leen ci Fatick palais national daal di gerte daal di jëm xeet yu bëri li mooy Sénégal Sénégal du Dakar kese Ah, Sénégal région yi la tey muy guddi aar guddi cosaan fii ci Fatick kontaan ci trop nag. waaw yu ñuy représenté dafa bari. Hmm. boo xoolee tey fuñ commencé mooy tukuleur ah jóge ci yeelaa bi dem ci balanta yi jóge ci balanta ñu laal séeréer dem fële sabar donc mu ngi noonu te am na yeneen temps bi sax moo ñu ko mayul. bi les concept jëm ci gën a patrimoine immatériel bu Sénégal. waaw spectacle bu am solo la ndax dañoo bëgg rek ñëpp kontaan waaye tamit rek ñëpp gis seen bopp ndax xam ngeen ni festival bi moom dañoo bëggoon rek indi suñu contribution ndax euh, li nga xam ne mooy Sine moom daanaka diversité culturelle la te fii nag moom euh, dëkk cosaan la spectacle bi nga xam ne euh, bu yàggul defoon nañ ko dañoo bëgg rek wane ni soraanu la mu am bari na. bale la Linguère kenn dootu ko naatable ci mbirum fecc wala tëgg yi bàyyeekoo ci dend Afrique moo tax dëggal na boppam ci langue fecc public bu Fatick moom duñu ko weddi